nga xamanteni ni dañuy tànn ay aya ci alquran di jangat ndax alquran moy téré bi ñuy wétali fi ci aduna moy téré bi nga xamanteni ni moy téré bu lèr nga xamanteni ni ben caaxaan neeku ci li fi nek lepp lèr bayiko ci yalla subhanahu wa taala muy téré bi nga xamanteni ni képp ku ci japp japp nga ci li jara japp te mom muy gumuk alquranul karim li la yàlla nga nek ci lamu la tere nga bàyyi ko la mu la dénk sa kéemtalaay kàttan nga nekk ci mbokk yi ñu ngi jaajëfal la maison du Coran nga xamante ne nii liggéey bi tey bu egsee fii ñoom la ñoom ñoo ànd ak ñun di liggéeyal li nga xamante ne nii alquranul karim mbokk yi ñu ngi waat ak yéen ba tey ci suratul furqaan nekkoon ak yéen ci màndarga yi nga xamante ne nii moom la yàlla wax ni ibaadu rahmaan yi noonu la ñuy woo màndarga yi nga xamante ne nii moom la ibaadu rahmaan yi war mbubboo war koo wane fépp ba li nga xamante ne nii moom la nit ñi yaakaaroon du loolu mais lii ñu leen wax nii ci saar wii mooy mandargay ibaadu rahmaan dëgg suñu aaya yi weesu tuddoon nañ ci ñeent bi ci njëkkoon mooy gaa yi nga xamante ne nii bu ñuy dox dañuy dox ndànk ñaareel ba gaa yi nga xamante ne nii amuñu jotu xuloo ak xeex ku leen mënti dañ koy romb dem ñettel ba gaa yi te dañuy fanaani julli di jakarlo ak seen borom ci xol yu tooy di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala ñeenteelu màndarga bi ñu mujjee woonu tudd moom mooy gaay yi nga xamante ni nii dañuy ñaan yàlla mu musal leen ci jahannam ndax jahannam nekk na mujjuwaay boo xamante ni nii mujjuwaay bu ñaaw la wàccuwaay la boo xamante ni nii képp ku fa mujj na nga xam ne nekk nga ci ak torox tànge mbokk yi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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يالا نينا بوكو ناتي ماندارغا عباد الرحمن دونيو ناي ماندارغا عباد الرحمن بوكو ناتي سين ماندارغا دونيو ناي dañuy nekk ñoo xamante ne ni dañuy mën a dépenser seen alal waaye dañ koy dugal fu wóor waaye tamit du ñu yàq waaw walladina ida anfaqu lam yusrifu du ñu yàq seen alal duñ ko dugal fu wóorul te bu ñuy dugal dinañ xam la fa yeyoo ñu dugal ko fa dañu jël seen alal jëpp xool ñuy liggéeyal yàlla subhanahu wa taala ñu jël ko am lu leen ca jox walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu waaye tamit kazalika du ñu nañ wa kaana bayna dalika qawaama yàlla subhanahu wa nee na nekk na si diggante ëppal lool ak nay ab martaba te moom mooy lan nga digg doomu ci sa dépense mbokk yi alal ji la yàlla subhanahu wa taala jox wallahi li nga ci lekk moo la ci jariñ wala li nga ci sol wala li nga ci génne def ko ci yoonu yàlla te am na ci dëkk bi ñoo xamante ne nii ñu ngi liggéeyal yàlla subhanahu wa taala lu mel ni kër gii ñu nekk tey jii di fi firi li nga xamante ne ni moom moo di alquranul karim am na mbokk yu volonté wu ngir ànd ak ñun kon yéen ñi ñuy déglu it kazalika képp ku bëgg jël alalam dugal ko ci yoonu yàlla fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum du ko perte du ko rëccu te mandarga ibaadu rahmaani kat bokk na ca walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna dalika qawaama mbokk yi ali ibn abi talib dafa wax wax ju am solo te reelu nee na bu la yàlla gersoo na nga gersu yàlla gersuwul parce que adduna wala àdduna sax la wax nee na bu la adduna gersoo na nga gersu ñu adduna gersuwul parce que adduna bis mën naa ñëw mu wan la ginnaaw daa di wan kanam ñi nga xamante ne nii ñoom la wanul woon kanam ida jaadati dunya alayka fa jud bihi ala nnaasi waalam annaha falal juudu yufniha ida hiya aqbalat wala al buxlu yubqiha ida hiya tadhabu nee na alal ji yàlla jox génne gi nga koy génne di ko dépenser ci yoonu yàlla loolu du tee yàlla subhanahu wa taala téye la mu la waroon a jox doon doo ñàkk waaye nay gi ngay it taxul bis bu yàlla bëggoon a dagg li doon ñëw ci yow du tee daf koy dagg kon bu la yàlla joxee alal na nga ko génne nga dépenser ko ci yoonu yàlla subhanahu wa taala nga dundal ci sa njaboot dundal ci say soxna dundal ci say mbokk waaye fépp foo dégg fu ñuy wooteel yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo ca manee bokk nga bokk ca kon mbokk yi loolu nañ ci bàyyi xel mu nekk nga boo xamante nii bu am solo la te moom moo di dépenser ci yoonu yàlla subhanahu wa taala tey islam bu egsee fii wàllu dépenser ci alal moom moo tax Abu Bakr as-Siddiq dafa génne woon alalam jox ko yonent bi salaa salaam Ousmane ibnu Affan dafa génne woon alalam jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi ne ko Ousmane loo defati yow yàlla du la du la ko topp loo mënti defati yàlla subhanahu wa taala jéggal na la ko du la ko topp kon loolu ba léegi mu ngi fi yow mi yor alal mën nga génne sa alal dugal ko ci ci liggéeyal alquranul karim dugal ko ci daara yi dugal ko ci foo xamante ne nii yeyoo na ko loolu yàlla subhanahu wa taala du ko nee na mukk dina la ci fay dina la ci fay fii ci àdduna fay la fi nga xamante ne nii moom moo di alaxira yàlla subhanahu wa taala ba tey moo ngi wax ci mandarga yi nga xamante ne nii mooy mandargay ibaadu rahman mu wax ni walladina laa yadcuuna maa allahi ilahan axar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله أكبر mbokk yàlla tudd na ñetti mandarga ci benn aaya daal ni mandarga rahman lañ ñu ne ban ak ban ak ban mu daal ni bokk na ci gaa yi nga xamante ne dañuy wéetal yàlla duñu bokkaale duñu jaamu ay xërëm duñu jinne du ñu gëm li nga xamante ne ni moom mooy ku leen di wax loo xamante ne ni yàlla subhaanahu wa taala moo ko moom yàlla la ñuy jaamu jaamuwuñu kaneen jaamuwuñu alal jaamuwuñu nit jaamuwuñu kenn yàlla subhaanahu wa taala kase kase la ñu gëm moom la ñuy jaamu lépp lu ñu am ci àdduna su dee lu baax ñu sant yàlla bu dee lu yi ñu muñ sant yàlla subhaanahu wa taala waaw loolu bokk na ci mandarga yi nga xam gën foor la yàlla subhaanahu wa alquranul karim li ëpp ci aaya yi wala li ëpp solo ci aaya yi mooy yàlla mu ngi woote ñu moytu li nga xamante ne nii moom moo di bokkaale yàlla wax ne dinaa baale bàkkaar yëpp ba mu des ko may bokkaale dinaa jéggale bàkkaar yëpp ba mu des ku may bokkaale képp kuy wutal yàlla ndënd fii ci àdduna di nga torox te boo génnee àdduna yàlla subhaanahu wa taala du la jéggal képp ku ko deewaale kon mbokk yi bokk na ci mandargay ibaadu rahmaan mooy ñi nga xamante nii duñu ñu bokkaale yàlla subhanahu wa taala moom yàlla kaseel képp rek dong lañuy ñuy jaamu waaye duñ jaamu keneen waaye ñaareel ba moom mooy duñu ñu faat bakkel du rey nit dañu téye seen loxo dañu téye seen tànk duñu def lenn luy faat nit mbokk yi boo xoolee biir société bi bokk na lu tax nit ñi amatuñ jàmm ñi reyaate ñoo bari yàlla nag nee na ibaadu rahmaan yi ñoom duñu rey kon boo xoolee nitu alquranul karim soo xoolee kuy dund alquranul karim di ko appliquer dëgg kooku bu ñu wax kuy rey buñ ko ca boole bu demee bay faat rek bokkatul ci ahlul quran bu demee bay faat ay bakkan na xam ni moom bokkatul ci ñi yonent yàlla yàlla subhanahu wa taala doon wax naan ñii ay ibadu rahman lañ waaw wala yaqtuluuna nafsa allati harama allahu illa bil haqq bu ñu demee bay faat bakkan daal bakkan boobu dafa yeyoo ñu faat ko mu mel nii dafa am ku rey ñu war koo rey ñu teg ko ci loxoom mu daal di rey loolu rek lay def wa illaa du faat ba kenn waaw waaye ñetteelu màndarga bi mooy wala yaznuun yàlla nee na ibaadu rahmaan yi du ñu njaaloo wala yaznuun du ñu njaaloo du ñu ànd ak jigéen ju leen lewul du ñu ànd ak jigéen ju leen daganul bu ñu demee bay séq ak jigéen rek daf leen di dagan waaw bu ngeen bàyyi xel aaya yi weesu ca suratul mu'minuun tuddoon nañ ko fa motax danaka duñ ci xuusaat yalla subhanahu wa taala waxna nakni, a, ni ah, a ni ngeen xamni bakkar yi ma fi wax muy bokale yalla muy fan bakken muy njaalo kep ku ko def day na nga xamni def nga bakkar bu reey reey reey reey te bo ci tuubul ba de di nga tasse ak mbugal mo xamanteni ni mbugal mu saxla mbugal mu dak bo xamanteni ni do takaliko ak mom ba mu dess ñi tuub allahu akbar ba mu des ñu tuub li ma leen wax ni alxuraan la de wallahi yàlla nee na ku doon bokkaale mbaa nga faatoon bakken mbaa nga mosoon a njaaloo séq ak jigéen jonte ni daganu la soo tuubee tuub gu dëggu yàlla nee na ma jéggal la waaw yàlla nee na ma jéggal la illa man taaba wa amana wa amila amalan saaliha il faut nga tuub ba pare jëf-jëf ju baax gis nga sayit xutbu dafay wax nii bàkkaar ay acte la da ngay jëf soo tuubee dangaa ngaa war di jaamu yàlla di def jëf ju baax waaye bul wax ni tuub naa rek daal di toog déedéet tegale say tànk dañoo bëgg yow mi doon def ay bàkkaar nga xëy bàyyi ko tuub nga bari looy def ay jaamu yàlla subhanahu wa taala looloo tax yàlla daal di wa amila amalan saalihan ngay jëf-jëf ju baax kooku yàlla subhanahu wa taala dina ko jéggal kooku yàlla subhanahu wa taala dina ko baal kooku yàlla subhanahu wa taala dina ko jël boole ko ci biir ibaadu rahmaan yi kon mbokk yi nañu tuub nañu delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala bu ñu découragé mukk bu ñu ni yàlla dootuñu baal déedéet yàlla subhanahu wa taala say bàkkaar lu mu bari bari bari bari soo ko doon tegale mu dem balal kaw asamaan sax yàlla subhanahu wa taala soo ko jégguloo mu daal di la koy jéggal moo tax mu ni illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanat allahu akbar gis nga yàlla nee na boo tuubee tuub gu dëggu bàkkaar yi nga defoon sax dama koy yël defal la ko ay tiyaaba waa yàlla moo mën a baale waay yàlla nee na boo tuubee tuub gu dëggu bàkkaar yi nga defoon dama la koy jël daan la koy defal sax ay tiyaaba jox la ko kon mbokk yi loolu lañ ci bàyyi xel wa kaana allahu gafuran rahima yàlla subhanahu wa taala ku mën a jéggale la ku am yërmande la ku ko ñaan mu wuyu la ku ko woow mu wuyu la ku ko tàllal loxo du ko bank mukk daf lay benn waykat dafa wax ni waaye yow yàlla sa buntu yi de bu fekkee ñun ñu bon ñu doo ko ubbil kon daanaka amatul sens bu fekkee sa buntu yi gaa yu baax yi rek nga koy ubbil kon ñun ñu bon ñi fan lañ jëm kon bul def bàkkaar ba yaakaar ni boo tuubee yàlla du la jéggal déedéet booy tuub yàlla subhaanahu wa taala di la baal lan lay bañ nga tuub tey suba nga dellu kooku tuubagul ki tuub dëgg mooy xam te nii bàyyi na bàkkaar dootu ko defati waaw yaa rabbi ولكن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم كن لولو نانيوتي باي مقي بني المندر ماندارغا باتاي تي ماندارغا عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الله أكبر بوكنا تي ماندارغا عباد الرحمن باتاي غايو خامتيني ني فو ام ñoom duñ ko seede laa yashhaduuna zuura duñu seede mukk ay caaxaan fekk nañ benn mbir ñu bëgguloo leen seedeloo dañuy wax dëgg buñ leen naree forcé ñu bañ a wax lu dul dëgg ñu daal di dem loolu benn firin la ci laa yashhaduuna zuura mooy ñoo xamante ne nii duñu seede ay caaxaan walla nga ni laa yashhaduuna zuura mooy ñoo xamante ne nii fu ñu romb gis ñi fii ay caaxaan daf faa am ñoom dañu fa sax jege wa ida marru bil billaghwi marru kirama bu ñu rombee fu ay tiaxan am bu ñu rombee foo xamante ne yàlla nee yonent bi nee amu fa place ñu daal di rombu ndànk daal di dem duñ fa tok duñ fa taxaw loolu bokku na ci seeni màndarga ba tey walladina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yaxirru alayha summa wa umyana banen mandar ga bi ci mandar ga ibadur rahmani bokku na ci batay gaay yi nga xamanteni ni suñu ne leen yalla neena yent bi neena rek dañuy jël daldi appliquer allahu akbar paré nañ ñum dañu paré toujours rek lan lañuy xaar nga ni leen yalla neena yonent bi neena luñu jappon ñu daldi koy bayyi mbokk yu xolal ab julit am lu mu japp nga ne ko ah yalla neena nga bayyi mu daldi bañ koku war na xolal ab julitem mbokk yi ab julit day téye dara nga ne ko yonent bi neena nga bayyi mu daldi bañ du bayyi allahu akbar waaw moo tax yàlla nee na bokk na ci mandargay ibaadu rahmaan yi ñoo xamante ne nii bu buñ leen waaree buñ toogee déglu oustaz ñu toog déglu borom xam-xam mu waar leen ba pare la mu leen wax lépp la ñuy jël daal di koy appliquer daal di koy jëfe kon mbokk yi yii tamit yeneen mandarga la ba tey ci mandarga yi nga xamante ne nii yàlla subhanahu wa taala lim na ko ci suratul furqaan daal di wax ni bokk na ci mandarga yi yente nii ibaadu rahmaan yi moom la ñuy mbubboowee kon keneen ku gis kaneen di def laneen lu wuuteeg li yàlla wax kooku lay mbubboowee turu ibaadu rahmaan rek waaye bokku ca kon nañu jàngat alquraanul karim toppat ndénkaane yàlla subhaanahu wa taala ak li nga xamante ne nii moom la ñu wax loolu moom moo ñuy may ndam fii ci àdduna may ñu ko fële ci alaxira di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp jéggal ñu suñuy bàkkaar leeralal ñu suñu yoon ba ñu tegu ci yoon wi nga xamante ne nii moom la yàlla bëgg yal nañu yàlla subhanahu wa taala dafa dégg topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.